Jungle. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu man la daam loo dëkk Touba Njarem doon taalibe Serigne Cheikh Maguette maanaam danoo am lu lu lu naqare ci koñ bi lu bëgg a jàmbat. bëgg jàpp ne man bu buñ ko jàmbatee dana dem fa su fa suñ kàddu mënta àgg nga nga nu ko fa ndax danoo bari loo naqari ci koñ bi lool première fois maanaam mooy mooy lëndëm gi waaw deuxième fois mooy manqué ndox gi troisième fois bi mooy sàcc yi danoo sonal loolu lan bëggoon maanaam jàllale ko pour nga mën ñu koo jàlleel fa suñ kàddu mënta àgg ñàkkum ndox mi ca koor ga ba léegi ñu ngi ñàkk ndox ca koor ga ba léegi dañuy rootaan guddi dañuy rootaan bëccëg loolu nag xëy na maanaam lan bëgg ci dimbale daal affaire eh, maanaam eh, eh, ñàkkum courant mi it metti na fi lool koñ bi lan dam na lool te noonu jàpp na daal war naa war naa mën a leer ci kaw ci kaw bu ñu ci kaw bu ñu ci dimbalee looloo taxoon ñu jàll suñu kàddu pour ñu mën cee dimbale. troisième fois bi maanaam sàcc yi dañ ñoo sonal lool ndax fii tro bëccëg sax Jakarta dafay dafay dafay dab jigéen fii fukk portable balam oto day ñëw fii guddi. fekk ay nit ñu toog mu fëkk seen portable pour mën na cee firndeel lu bare bare bare bare loolu nag mu ñu am ci jaaxle lool te deuxième fois li ma jaaxal mooy maanaam boo fi boo fi jàppee sàcc yow soo ko gaañee ñoo indi la problème te bu la sàcc bu la sàcc reyee say bokk ñàkk loolu it jaaxal nañu ñu bëgg ko ci dimbali maanaam li li li ci des maanaam quatrième fois bi li ci des moom mooy wàllu ceeb bi. di maanaam danoo binduwut ceeb bi dañoo wax ne mbind a koy maye danoo gisut ku bind gisunu fu ñuy séddaleeb ceeb joxuñu nu ceeb xa gisunu gisuñu gisuñu chef de gisuñu gis gisuñu euh, délégué de quartier gisuñu dara fii fii Thierno Ndiaye wax waaw man de déwuma fa waaye am na ñu fa dem li tax déwuma fa it. li nga xamante bi moom laay moom laa moom laa moom laay eh, gis ci média bi di ko déglu ci journal eh, ci di ko liir ci journal bi di ko dégg di ko di ko dégg ñu di ko wax dañoo wax ne maanaam koñ bu ne chef de village délégué eh, maanaam délégué de quartier bàjjani gox njiital assance imam loolu la wax ne maanaam kenn ku ne da ngay toog sa kër ñu wax la ko te loolu lépp ñun gisuñu ko ko loolu lépp ñun gis gisuñu ko loolu tax ñu toog suñu kër xanaa dañoo dañoo jàpp bu fekkoon ne daf ñoo woo nañu léegi lool loolu loolu loolu ñu wax man man man doxewu ma noonu li may doxee mooy ku képp ku ñëw sama sama sax fa may bindee ma bind la su boobaa danañ mën a dem waaye ñun lii la ñu wax ñu toog di déglu te moom mi ñu war a leeral maanaam lañu ñëw leen ma bind leen woowuñu ñu ñu ñu ñu mu délégué ci koñ bi dara xanaa dina xëy dina romb tey da tey danoo gis am na ci ñoo xamante ne bii ci koñ bi ñu ñu ngi fi am ñu ngi fi am te léegi ñun amuñu loolu moo ñu tax ñu leer bu leen waaw am am na ñu fi am bañ bañ gis ko waaw. ay ñeenti nit ay ñetti nit am na ñu fi am bañ gis ko ñooñu it nag la tax ñu am ñun ñun toppatoo wuñ parce que loolu du suñu rôle ñun lay suñu rôle mooy suñu digg moom waaye maanaam ñeen lañ def ba am loolu du suñu rôle bu ñu di ko toppatoo ñun loolu du suñu rôle te danoo war am ndax ceeb bi Macky Sall mayewu ko maanaam Marème Faye mayewu ko Aly Ngouille Ndiaye mayewu ko ceeb bi suñu alal la te da koo yëttewoo dañu ko war a jox waaw lii daal mooy li nga xamante ne bi mooy li ñu jaaxal am na bari na bari na leneen manque manque yi fi bari nag waaye nag comme temps bi du ko maye temps bi mayewu ko loolu la rek léegi daal ñun dañu ñun daal maanaam xuloowun xeexunu waxunu kenn lu ñaaw waxunu kenn lu ñàkk teggin danoo xamut di laaj bëgg ku nu teg ci yoon ku nu teg ci yoon nag joxoñ nu yoon ñu gis na yoon wii buñ ci jaaree am liñ bëgg ñu jaar ca ku ñu joxutu yoon nag maanaam fu ñu fu ñu jàpp ne maanaam buñ fa demee man ñu mën ñoo teg yoon ñu dem fa lii rek la salaamaaleykum man Modou Sene Diop man maa demoon kër Thierno Ndiaye bindoon fa uh, ca koor ga bi ma demee après ñu bind ca koor ga après ñu ni dañuy séddale ceeb bi ma dégg dem ñu dégg sama tur ma déggee sama tur ma dem ñu sote ko ma àgg waa ji ni ma fii ku fi liir ñu sote ko mu jaal ma dem ba ci jëmmi Thierno Ndiaye moom ci boppam ma taxaw jàkkaarloo ak moom mun ma loolu amul ma wax ko mun ma dangaa réew génn sama pécc tey démb ma demaat fa di wut ab certificat de domicile dem fa mun ma sama penc mun ma fi am certificat domicile génnal sama penc yooyu droit nag laa xamul loolu moom mooy lan. aleykum wa rahmatulahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare baax te di leen jégalu di leen ñaanal jàmm ak ay xéwal di wax tey li ñu tax a daje fii tey muy loo xamante ni dañoo naqari ñu di ko jooytu li ci ëpp bokk na ci wàllu ceeb bi nga xamante ni moom it ñu ngi koy séddale. te boobu ba léegi fii boo xoolee quartier bi yëpp Nihimari Dial boo xoolee li fi am boo ko génnee ci ñetti nit wala juróomi nit lay toll. lanu gën a naqari it boole ci dañ ñi ñi nga xamante ni ñoom euh, ñi ngi koy séddu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñu am bourse familiale ba pare ñoom la ñuy jox ba pare dooloo jox ñi nga xamante ni amuñu bourse te bi nga xamante ni ñu ngi ñuy couvre-feu ñoom ñëpp ñun ñëpp lañ boole woon euh, couvre-feu euh, tëj ñu ñun ñëpp amul ñu tëju woon kii bàyyi kii. kon nag dama yaakaar ne bu ñuy séddale ñëpp lañu ci war a bo maase euh, maase séddale ñëpp ñëpp bokk ci yam ndax ceeb bi ñëpp ci bokk yam amul kii amul kee sénégalais ak sénégalaises yëpp lañ ko bokk jox kon nag euh, loolu naqari nañu lool euh, ñaar téeméer yi nga xamante ni boo demee buñ la bindee bala ngaa dugg joxe ñaar téeméer ñaar téeméer yooyu tamit doon nañ laaj ba xam moom lu waral ñaar téeméer yooyu loolu tamit maanaam buñ la bindee ba rappel la boo demee joxe sa carte d'identité bala ñu laa jox ceeb bi da ngay joxe 1000 ñi nga xamante ni ñoon lañ jot ci ceeb bi loolu lañu ñu wax ni loolu la ñuy def waaw loolu yi ñu ngi doon laaj boo xam ñaar téeméer yooyu moom fu fu mu tege ak lu tax ñu di ko ci teg ak yi nga xamante ni euh, certificat domicile yi nga xamante ni dañ ko fay wut euh, ñu ci bari ñu ko fay wut nee nañ am nañ ci lu leen naqari ndax bu ñu demee nee nañ mille francs lañ leen di laaj te yaakaar naa ne nee nañ 300 francs la war a doon wala lu ko moyen te bu ñu demee danañ leen ci teg ay gàllankoor fay loolu leen impôt boole ci. loolu it nee na naqari nañu ci ci Thierno Ndiaye mi nga xamante ni moom moo jiite euh, gox bi dëgg dëgg wàccaay wi nga xamante ni daal war nañ koo am ci suñu gox bi moom joxuñu nu ko ñoo ngi sàkku nag wàccaay wi nga xamante ni gox bi war na ko am ñu jox nu ko ba mu mat sëkk ndax ay citoyen leen ci réew mi leen dëkk ay taalibe leen euh, dëkk ci réew mi dëkk ci dëkk bi kon nag ñu jox suñu cër ñu jox ko cëram bu fekkee ne ni bëgg na ëllëgee bu fekkee ne ni soxla nañu ñu jox ci soxlaam day dox ci suñuy soxla ñu ngi leen di jégalu bu baax. asalaamaaleykum.